ñoo bi niñ ko waxee woon ñu wax ci njàng ak njàngale saes kuréelu njàngalekat yi ci débrayage bu 9 heures jotee ñu ne nag daañu def yeneen lu mel ne nag ñoom ñi nga xamante ne si ñoom ñooy saes ba ña ngay def action ñu du ñu gën ak Sénégal ci noonu dañuy teewlu coordonnateur bu boobule kuréel Yankoba Seydi lay wuyoo ay setu pay faal moy wéyal li nga xamné moy plan d'action ba nga xamné dañ ko euh, dañ ko euh, préparer won ba nga xamné ne amoon nañu conseil syndical national euh li ci nar a topp ñu def assemblée générale sur sur juróomi campus yépp ci Sénégal buñ ci joggé nak le 2 février dañuy euh, fas dañu fas yéene def amal li nga xamné moy cérémonie incinération loi Madame loi yi dañu leen di lakk ci devant ci rectorat après après cérémonie de levée de couleur pour voir fësal nak suñ ñak and ak euh, loi yi nga bonne bonne ci université li ci nar le 14 février muy li xalé yi naan jour Saint-Valentin ñun nag dañu manifester dañu def bureau national élargi SAES dañ koy def ci université Gaston Berger slogan bi nak pour jour boobu moy j'aime mon université moy dama bëgg sama université pour wan askan wi lepp li nga xamné ñu koy def ci walu xex dañ ko def ngir bëgg sama université. ñu dess euh, ci euh, njang mo kawe mi da ja université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru doxantu nañu fa ndonga yi li ñu gis né ñu rafetlu ñu bile doxalin ñom li ñuy sàkk moy at moo xam ne dañuy jàng te duñu am benn gàllankoor ay satu pay faal ba tey ak kenn Laurent Mendy ba nu jógee ci jàngalekat ya dem nañu taataan kàddu ndongo yi. péage du nekk loo xamante ne day arranger étudiants yi mais man li may njëkk a wax à chaque fois li ñuy wax ñun mooy que le ministre bi euh, faj coono euh, suñu enseignants yi suñu professeurs yi. parce que ñun dañoo bëgg jàng certes ñun nous sommes déjà nous sommes en vacances mais am na ñoo xamante ne commencé nañu déjà un emploi de temps yi génn nañ mënaguñoo def cours am ñoo xam jusqu'à présent ba tey defuñu cours les nouveaux bacheliers am nañu toog six mois je pense que ñoom it defuñu cours ils étaient en vacances donc loolu c'est quelque chose bi nga xamante ne du du loo xam lu yoon ak Sénégal fu mu toll enseignement Sénégal fu mu toll léegi ak tiitaange rek parce que boo gisee nii année bi commencé wu la ba léegi tañoo ci fin janvier début février année bi commencé gu prof yi di grève loolu problème abu mag a mag la procès Karim Wade àtte ba dina dooraat euh, tey jii kanuy euh, xaar bokk na ci nag Bibo Bourgi lu tax nag ñu tudd leen euh, kuréel gi di AHS ak nanu ko taxawalee ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ñëwoon ca baar ba dafa mel ni gën nañ leen a dugal moom Pape Mamadou Pouy Bibo boo Karim Wade ak ñu ni mel moom Karim Wade niki démb mook ña koy layool ak ñëpp ñu taq ci défense bi di yooyu les avocats ñoom teewuñu fa dañoo wéy di gedd dañ ci ànd ak kanu fa teewaloon niki démb Adia juróomi seede a toppante ci baar bi bokk na ci Ndiaye Samb nekk chef comptable Abdoulaye Mbodj di comptable AHS ak njiitu SHS ci seede yi ñu indi yëpp dañoo dugal kii di Mamadou Pouye ak Bibo Bourgi gën a dugal kii di Karim Wade Ndiaye Samb li mu xamal mooy Mamadou Pouye Pierre Agboba Bibo Bourgi ak Karim Bourgi ñooy actionnaire AHS nekk tamit bénéficiaire economique yi donte bëgguñu fësal loolu moo waral ba seeni tur nekkul ci statut entreprise bi Abdoulaye Mbodj mi toppatoo client yi ci AHS nee na li fa am ci dogal ñu ñu tuddee HQ1 ak HQ2 di Bibo Bourgi ak Mamadou Pouy ñoo ko daal di jël ñuy mbuboo ci seeni jëfin kenn ku tudd Evelyne Rioux di consultante nekk tamit directrice administrative ak financière euh, këru hs yi nekk ci àddina bi yëpp mu doon def li ko neex te du ci yëgal directeur bi di Elimanel Diop dara Evelyne Luyu doon na dem bay soppi yenn kayit yi ngir rek wàññi recette kër gu liggéeykaay bi Mamadou Lamine Guèye nekk directeur SHS moom li mu xamal mooy bi ñu libéraliser assistance bi ci aéroport ci la postuler ngir bokk si ñu fay yëngu ñu daal di wàññi xam ngir rek jox marché yi AHS. mu njorte ni Karim Wade moo nekk ci ginnaaw li ko firndeel rek bëri na ci ay gan yi nguur gi doon am waa AHS ñoo leen doon toppatoo. ci audience talaata bi Karim wadd ak avocat défense yi kenn teewu fa ndoonte nag terewul audience bi wéy ñu nar ko tàmbaliwaat ci alarba bii di ñëw ñu war ci déglu kii di Ibrahima abu Khalil Bourgi nekk ko accusé Karim Wade. Dia Talla ñu jeexale ak syndicat national des travailleurs des industries alimentaires ñu yëngu ci wàllum euh, ñam yi ak euh, confédération général bu fekk baax fële ci Italie lëkkaloo nañu ngir euh, jàppale yenn ci ndaw yi tàggat leen liggéey li jublu rek moom mooy fexe daal ba ndaw yooye toog file am ndaje la ñu amaloon fële ca bourse du travail mais nekk ci diwaanu Ndakaaru Codé Ndiaye ak Mar Diène ñoo fa teewaloon télévision Futurs média syndicat bi ëmb liggéeykat yi yëngu ci wàllu industrie alimentaire ak seen naataango yu jógee Italie fas amal ab lëkkaloo Lamine Fall jiite Sintra di dellu si ci solos partenariat bi lee CGIL mooy centrale syndicale italienne bi ëpp ci Italie ay liggéeykat moo moom la ñu amal partenariat fii ci Sénégal ñu ñëwoon nag tey pour xool nan la nan la ñu waxtaane pour signer benn accord cadre boo xam bi daf ñu lënkale ak ñoom pour ñu jàppaloo dimbalante mën a disons jël ay questions yoo xam ne bi tey jii mi ngi traversé mouvement syndical bi. lëkkaloo bi nag la ko tax a jóg bokk na ca formation militant yi waaye itam wàllu immigration. bu njëkk bi mën nañ wax dem mooy bi nga xam ne bi politique d'immigration bi nga xam ne Euh, moo am diggante Sénégal ak Italie war a mën a dem ba signé ko li ñuy wax convention boo xam ne bii dana permettre ku retraité Italie mën a ñibbi si Sénégal ci jàmm sa pension di la fi fekk nga di ko fayeku di mën a dundal sa njaboot. beneen bi tam mooy li nga xam ne moom la ñuy wax formation formation nag dafa bari ay disons dafa bari ay ni koy waxee ay poñ ndax. ñun syndicat lañu il faut ñu def formation syndicale ndax dañu am ay militants yu bees dañu am ay xale tey jii ñu faluñ ci biir këru liggéeyukaay yi nekk ay responsable nekk ay délégué du personnel te amuñu xam-xamu syndicat. parti italien bi nag di rafetlu initiative bi lee. noi vediamo noi già stiamo facendo dei cicli di formazione. partenariat bi am na solo ndaxte dañuy former ay syndicalistes sénégalais ak ci participation syndicalistes italiens. partecipato ai corsi di formazione con la FLAI. Sergi Gallo jiite syndicat italien bi di xam ne dana def kem lay kattanam ngir rek fexe ba partenariat bi daal di jëm kanam. Xodé Ndiaye ñu lay sant di la gërëm yéen tamit naka noonu ci teewlu bi beneen euh, jotaayu xibaar ci kanam ci euh, français lay doon Pape Cheikh euh, ñu ngoog ñu tàggoo fi ba ci kanam.